Euh, jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur euh, Média xibaaru digg bëccëg beeg euh, ponk yi ci gën a fës procès bu Karim Wade ñu di ko wëyal mbooleem ñi ñu ci tuumaal ñu di leen déglu bokk na ci Alioune Samba Diassé ba nëg ni nag nekk ci kanamu juge bi tey ji nag dafa daal di mujjee crise sax ba audience bi ñu waloon a wëyal ba fukki waxtu ak benn dañu ko mujj ajandi daan ci jokkoo ak suñu ndaw la fa nekk moo di gay leneen ci ponk xibaar yi tabaski li ci des daanaka ñaar fukki fan ci la yem lii nag di xar ñu gis ni nag euh, mi ngi jafe euh, ci dara li jaaykat yi nag ñoom la ñu xamle moo dina nag xontu seen i xar moom jafe na ndax lu soxal mbirum ripaas bi wala boog ngooñ lu ci ne euh, cher na bay bëgg a dee loolee nag ñaawlu nañu ko baykat ya bootu ca fédération nationale ba ëmb opérateur privé yi ak stockeur ya nekk ci bëj saalumu réew mi ñoom nag ñi ngi sàkku ci ñu fay leen lu ëpp benn million benn milliard ci suñuy koppar loole nag aju ci facture yi nga xamante ne nii jëm ci seen payoor ay bon d'arachide di ay bon gerte loolu it war nañu leen koo fay tax na nag ba ñu ngi doon yëngu ak yëngal di wane seen bopp uh, foofee ca uh, ñu leen jagleel muy dossier bi daañu wax ci wàllu ne ab secteur la boo xamante ni nii uh, daanaka ñi cay yëngu yi di pneu yi nga xamante ni nag beesu lool ñi ci yëngu nag gis nañ ni daal njënd ak njaay mu jar la rawatina ak jamono yi nga xamante ni nii jamonoy nawet la daañu dem ba allé Pape Gueye xibaaru biti réew Barack Obama njiitu réewum États-Unis daal dina yónnee lu toll ci ñetti junniy militaire ci réew yi nga xamante ni ñoom ñoo loru euh, ci jàngoro Ebola di ñetti réew yi ci gën a loru mbokki xarit yi kon lii mooy ponk yi gën a fës ci xibaar yi yaatal gi nes tuut lay doon jàngeen jëf euh, ci ànd beeg télévision Futurs Médias ni mu ko waxee ci ponk xibaar yi euh, procès bu Karim Wade ñu di ko wéyal mbooleem ñu ñu ci tuumaal ñu di leen déglu bokk na ci Alioune Samba Diassé euh, tey ji nag dafa daal di sax crise xëm ci kanamu àttekat bi ba daanaka audience bi nga xamante ni waroon naa wéy ba fukki waxtu ak benn dañu ko ajandi dañu fay fekki Mody Gaye Mody Gaye maa ngi lay maa ngi lay fay Fatou Kiné Deme. Modou Gueye kon mu mel ni loolu tey bokk na ca la fa yees muy Alioune Samba Diassé ma crise ca kanamu président bay atte waaw lu nu mel moo ci am ba fii may waxee yow fi mu nekk ñu ngi ko tëral ci benn banque yi nga xam ne avocat yi fi la ñuy toog suñuy layeen ñi nga xam ne ñoo di seen i clients fi mu nekk na ñu ngi ko tëral mu tàlli ñuy xaar ñi nga xam ne ñoo di secours yi maanaam sapeur pompier sax nañu mujj woo ci jël ci ko ndax président juge wax nañ ko jàppoo mu génn waaye nag moom nee na mënul boppam dara fi mu nekk fi mu tëdd ñu ngi ko tiim waaye xippiwul bëri sax ngeen daal di xool mu nekk loo xam ne tax na président audience bi di Anne Grégoire te dakkal nga xam ne moo di audience laata ñu yeggee benn waxtu ci li nga xam ne moo di séance bi waaye nag laata loolu Fatou Kiné tamit am na ay laaj laaj ak tontu dox na ci diggante moom ak parquet général bi mu di procureur Alain Ndao mu di procureur Antoine Félix Diome ñoom nag laaj yi ci li nga xam ne moo di ADS di société bi nga xam ne moo ko créé ak ADS bi nga xam ne te ni dafa nekkoon actionnaire à cinquante pour cent te mu nekkoon par Bibo Bourgi loolu nag laaj bi ci gën a am solo moo di kat ak société boobu xam ne nekkoon actionnaire la nga xam ne moo di koppar yeeg nga xam ne fële lañ ko doon yóbbu mu di Monaco dañ ko laaj koppar yooyu ndax yow xam nga fa la daan jógee ak nu mu faram jógee waaye moom amul genn force boo xam ne indi na ko si nee na daal suñ ci bëggee lu ci leer nag gars yi dem indi Bibo Bourgi mu daal di siy tontu laata ñuy dakkal Euh, xuloo bu métti bu amoo ci diggante parquet général bi nga xam ne ñooy avocat Karim Wade yi li ko waral mooy parquet général bi dafa génn benn document di laajte ki nga xam ne euh, moom mooy Pape Aliou Diassé ne ko ndax document bi yaa ko signé déet sama gars yi ne ko du ci dal ndax kat document bu mu fi indi dafa waroon a bokk ci li nga xam ne moo di enquête waaye du ñu nangu tey toog ba tey. ñu indi beneen document war ko doole ci li nga xam ne moo di enquête bi fi nekk loolu ci loolu la dakkalee science bi ci article quatre bu code pénal ci lañ doon nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllum yoon euh, fii nga xam ne moo di tribunal bi kon loolu a jàppale Pape Abdou Diass fi mu nekk mu ngi tàlle ci li nga xam ne banque bi avocat ngir xaar sapeur pompier jël ci ko yóbbu ko ngir ñu xam naa ci benn bërëb fajokaay bi ñàkk moo di euh, ñu daal di jeexale rek euh, bu weesoo moom ndax am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi leen di xaar ci kanamu baax bi tey jii nag bu mu demee raay ba léegi moom rek la ñu fiy xaar loolu moo tax ñuy njox ndax bu audience bi te moom mi nga xam ne tey moom la ñu wax taxawoon pour déglu ko dañ koy évacuer fi mu nekk ndax audience nañ ko yëgale ba dix-huit il faut ñu dellusiwaat bu ñetti waxtu jotee ngir mën a xam lan la ci ki nga xam ne moo di juge bi di décider déet. kon la ca kanam rawali euh, gët euh, Mody Gueye ñu dina la jaajëfal bu baax moom moomee sax euh, démb laaj ak tontu doxoon na diggam ak président cour ba moom sax mi ngi doon wax ni kon am na koppar yoo xamante ni moom la dencoon ci ab coffre-fort ci biir këram loole nag toll ci ñaari téeméeri million ak ñeent fukk nee na nag loolu moo tax sax moo mën a tax kon mu samp société boobee di ADS ñuy wax nag ci mbirum tabaski ndax lu ci toll bu matee nag ñaar fukki fan daanaka ci la yem xar nag moom jafe lool bu ñu ko dee xool euh, ci daral yi ñi nag di jaaykatu xar yi ñoom jàpp rek ni wax dëgg neex yàlla xontu seeni xar moom jafe na jamono yi ndax kat lay waral ñu jox leen ñu lekk mu jëm ci mbirum ripaas baak ngooñ ma lu ci ne cher na ñu ngi sàkku nag ci ñu jàpp si leen ñu jàppale leen si bu baax a baax ndax nag xar mën a doy bu baax ci tabaski bi Salimata Seck xar yi bareeguñu loolu fii ci daral bi nekk ci ginnaaw stade Léopold Sédar Senghor kat bi duñu xamal lan moo ko waral. xont bi dafa cher fii boo fi ñëwee frais yi day metti saaku ripaas bi ministre bi wax ne dañ koy jaayee six mille six cent bu ñëwee fi dafa am ay lenn ci commerçant yoo xamante ni ñoo koy téye buñ ko jëlee dañ koy jaay huit mille francs te loolu du yoon ministère bi dafa war a régler fii foo xamante ni fa la ñuy teg ripaas bi di ko jaay prix normal. bañ ko jox ci benn loxo éleveur wala benn loxo commerçant. ñu joxoñ leen baaraamu tuuma ni ñoo yokk ngooñ bekk ripaas gi jaaykat bi ni lu war la. ngooñ bi li tax mu cher bëri na de ndax euh, fi muy génn du fekkee ne dañ la koo jox euh, prix boo xam ne dafa dafa kii dafa cher yow su ñëwee doo ci bëggee am dara il faut nga yokk ko. saak bi bi actuellement fii ñu ngi koy jaay ay mille ba 4300. xaadim moom di préparer di defar lam bi ngir mën jot ay xaram ci guddi gi wante muy dalal xel yi. boo xoolee Sénégal ñu bëri ñu naan xar amul xar amul nit ñi ñu ngi jël xar yi denc ko di xaar tabaski kenn mënul la ne xar dina am wala xar am ku si nekk xamal li nga am rek mais nit ñi dinañ ñëw. xar moom man gëm naa ne nit ñi dinañ ñëw. ay ayu bés rek moom moo des ci feetu tabaski bi jaay beeg jënd bi fii ci stade Léopold Sédar Senghor moom daanaka tàmbaleegul bu baax. Salimata Seck loolu tax na ba jaaykatu xar yooyee ñoom wax ni dañuy xaar ba mu des fukki fan ngir gën a indi ay xar ba bañ a jànkunteel jafe-jafe yooyu nga xam ne aju na euh, ci xont bi nga xamante ni euh, cher na baykat yu bootu ci fédération nationale bi ëmb opérateur euh, privé yi ak stockeur yi nekk ci bëj saalumu réew mi ñoom nag ñu ngi sàkku ci ñu jox leen lu ëpp benn milliard loolee nag lu ñu warloog ñoom la aju na ci wàllu facturé ak lu soxal bon d'arachide yi nga xamante ni kenn fayu ko ñu ngi doon wane seen bopp nag ñoom ñooñee ci bëj saalumu réew mi fa nga xamante ni rek moom mooy euh, Bignona doon nañ fa yëngu-yëngal nag euh, ki yore woon seen kàddu Serigne Cissé seen secrétaire général moo addu ci seen kàddu ñu teewlu ko ak Boubacar Diassi. depuis euh, fin mai 2014 suñuy opération ci wàllu campagne bi. loolu waral tey ñu teew fii ci Bignona daal di jébbal ab mémorandum préfet bi ngir mu yegee ko ñi jiite réew mi ndax ñoom ñooñu ñu amal ay saafara ci jafe-jafe yi baykat yi di jànkonteel facture yi ñu déposé ci Suneor toll nañu ci milliards ak genn wàll. un presque sept cent millions. ñu daal di wax ci leneen dem ca quai débarquement euh, bu pêche ba nekk fële ca Yoff quai quai débarquement ba euh, foofe nag dañu gis ni ñàkk jumtukaay ba tax na euh, ba ñu yëngoo ci wàllu napp ga foofe di mareyeur ya ñoom nag ñu ngi jànkunteel ay jafe-jafe yu tax jafe-jafe yooyu nag bokk na ci ñàkku kaaraange waaye tamit salte ga nga xamante ni ma ngay lëmbee ci seen quai boobee ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu taxaw leen bu baax a baax ci seen jafe-jafe yooyu Nafissatou Sylla ab quai de pêche bu parewul beneen jumtukaay newu fa muy dékooru marché jën bu mag bi nekk ca Yoff loole nag neexul benn yoon mareyeur yeeg nappkat yi amuñu comme quai comme Soumbédioune yaa ngi may dégg te fii pour nga ñëw fi client yi foog nga wëri aéroport te day metti si ñoom cinq heures la ñuy lal six heures sept heures huit heures ñu wàcc amuñu lampe amuñu dara usine glace bi defar nañ ko fi mais dañ ko defar noonu rek turu usine glace la mais defaragul benn benn benn bagu glace defaragul ko tefes gi tilim na tilim goo xam ne yenn saa yi day salte duñ am ñun ñooy mobiliser fay jim ko nettoyé noonu o oto bi mu ñëw ñu yóbbu ko te loolu métti na si ñun torop suñu liggéey situation bi ni mel nag ña ngi koy dund ay at a ngi nii benn coppite amu ci mareyeur yi di wax ni diggé yi ñoo fa ëpp. ku ne ñëw na fi ministre de la pêche bu ne ñi falu yëpp si jamonoy Ablaye Wade ba léegi ku fi ñëw dig ñu après li ngay wax doo si def dara. ku dugg moom di nga ñëw wane sa bopp ne soo leen ma defaralee dinaa leen defaral seen quai de pêche bi mooy loolu daal na woon fa woon daal. fii ñu toll nii nag ñi ngi woo délégation municipale bu bees bi ngir mu dugal loxoom ci liggéey bi ba ñoom ñu mën a tàkkalikook jafe-jafe yi. Abdoulaye Diouf Sarr nag ñu ngi koy xaar ñu ngi toog di ko xaar parce que li mu moo ñu ko diggoon ne buñ ko votalee dinañu jàppale ñu ngi toog di xaar pour après mu mën ñoo jàppale si affaire de quai de yi ah, jàppale ñu si affaire de lampe jàppale ñu si tamit ay employés yoo xam ne dañuy mën a nettoyer tefes gi pour mu am hygiène. ba bi. si wàllu jumtukaay beex yooyu yëpp ñu ngi siy ñaan lu ñu si mën a dimbalee. quai bu Yoff bi nag bokk na ci quai de yi gën a mag fi ci Ndakaaru ay nit ñu bëri di fa liggéey at bu nekk tamit ñu fay wàcce ay toni toni jën. Nafsat Sila wax nañ ko ñoom mareyeur yooye diggé yaa ëpp euh, jëf ya ñeneen ñuy ñaxtu leneen di commerçant euh, yooyu yëngu ca wetu stade Léopold Sédar Senghor ñoom nag ñàkk wa nag euh, la ñu wax loolee tax na ba duñu mën a def daal seeni yitte waaye tamit lu jëm ci ndox ma it ña ngi koy ñaxtu ak ñàkk courant ba dem ci ànd ak bint lu Mohamed Dieng ñiy liggéey ci booru stade Léopold Sédar Senghor bëri lool rawatina fan yi jaaykatu xar yi wàll si moo ne de wanag sax amu fa ñoom jaaykat yi jaaxle lool di ñaan ndimbal. tamit euh, toilette ñëwagul ah. waaw bu ñu ci mënoon jàppale tamit na am solo trop. da nga am des problème pour sangu affaire yooyu noonu xam nga. moom toilette léegi moom day moom yàlla da ngay indi mhm. war nañu jàppale nag. bu ñu bëggee dem wanag lu ne la ñuy daj. fait da dem ci kii maison kii yi rek ñi dëkkandoo yi rek xam nga fi moom les gars les gens sont sociables quoi da ngay dem si gàll yi nii après nga ñaan xam nga dañuy ñaxtaal ak léeg lañ dugg si kër yi di ñaan gars yi bàyyi ñu dugg dugg kii wanag waaw nga xam ne dañuy bañ pour ñu dugg foofu quoi seen coono yamul ci ñàkkum wanag dong courant ak ndox doon fa itam jafe-jafe ndox robinet euh, courant mhm. waaw yooyu yëpp amu fi yooyu yëpp amu fi ah, ak jafe-jafe léegi la am jafe-jafe ndox lépp léeg-léeg loolu moom dana kii moom dana sonn moom mhm. waaw même chaque année nag nii la rek di di kii rek di débré rek léegi moom léegi dañuy gars yi kii xëcc raakool pour gars yi ñu kii ndox si kii waaw. jaaykat yi daan doole rek indi leen ci buntu stade bi waaye seen nekkin foofu doonul lu mucc ayib. ñi di la jaajëfal Bintu Loum ajuk 2014 ñi nag di voyagiste privé ñoom daanaka ndax képp nañu seeni inscription loolee sax ñi ngi ko jàppoon benn fan ci weeru septembre dañu ko mujjoon dàq ba fukki fan ak juróom-ñaar ah, ci weeru septembre waaye nag dafa mel ni ñoom loolee ah, teewul nag ñu jël seeni matuwaay daal di ndar képp ni ma ko waxee seeni inscription may mën a jaay madame seen ak monsieur Signaté di ñaari voyagiste privé di faral di yóbbu ay ujaaj at bi nag ñu teel a jël seeni matuwaay tax ba ñu teel a dakkal mbind mi bañ ñu leen bett. teel nañ atteindre quota bu ñu joxoon hmm? donc euh, teel nañ atteindre quota bu ñu jox euh, bon cinquante pèlerins la ñuy yóbbu te euh, nañ suñu cinquante def nañ yi. dina am ñuy dem le 23 am ñuy dem le 24 incha allah. avant weeru koor bi yàlla suturaal nañu ba clôturer nañu woon yëpp ñun pare nañu woon inscription. ni daaw at mi ñu wàññi bu baax lim bi Sénégal nar a yóbbu Màkka tax ba voyagiste yi ne am nañu beneen doxalin. ñu ngi ci 130 at bi. par rapport ak yeneen année yi 150 la woon mais comme que Arabie Saoudite moom moo wàññi quota bi ren ñu ngi ci 130 personnes. voyage mi ngi nekk. lu ñuy préparer donc soo amee ay ujaaj yoo xamante ne dañoo ils se sont déjà préparés dañoo préparé wu pour voyage bi donc day gaa day daal di yomb. soo atteindre ce qui veut dire que mën nga euh, boucler mën nga daal di def vaccin yi xool ku deful vaccin nga woo ko mu ñëw def vaccin hmm? donc. organisation bi organisation bu bëri la laaj. gannaaw tiitaange bi privé yi àndaloon fan yi ñu génn ndax virus Ebola bi tey jii ñu ne seen xel dal na bu baax am nañu njort ne aj bi dinañu ko matal te benn jafe-jafe du ci am. Maymuna Ndiaye ñu jéggi suñu frontière wutali Espagne ci pém réew ma euh, di Madrid euh, muy ceebu jën euh, di maafe di dibi loola nag ñun def nañu ko suñu moomeel waaye bu ñu seetloo ca Madrid dafa mel ni doomi dëkk ba sopp nañu ko ak it sax ñu fa cosaanowul ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo yëngu ci njaayum restaurant ma foofee ca Madrid crise bi nga xamante ni moom mooy lëmbe Espagne ci atum lu ba tey ñoom crise boobee mën nañu ne daanaka sonalu leen ndax kat seen liggéey bi ñu ngi cay sutur la bu baax a baax suñu envoyé spécial ca Madrid Boubacar Kamel Dieng. bokk na ci ñenn ñu nu mën a wooye ambassadeuru Sénégal pour mën a fesal suñu toggub réew ci yeneen yeneeni dëkk mi ngi ci Madrid di wuyoo Yërim Mbagnick Mbodj mi ngi wéyal liggéeyam di ci tedd tamit ci lenn ay pàccu liggéey yuy dox ba léegi ci Espagne mi nekk ci crise maanaam jaay ci restaurant. C'est un peu difficile de dire qu'on qu'on tire l'épingle mais alhamdulilah ñu ngi sant yàlla lu muy teg ci taabal bi mooy lekkub Sénégal ceebu jën ak ñoom seen askan wi nekk ci dëkk bi ay nationalité yu bare di fi dajee bëgg nañ ko lool ay client am téeméer bu nekk juróom-ñett fukk bi waa Espagne la wala yeneen réew yu dul Sénégal la lekk yi mu koy jaayee juróom-benn jàpp juróom-ñaari euro maanaam juróom-benn téeméer jàpp juróom-ñeenti téeméer ci sunu xaalis boolewuñ ci boisson ak ñoom seen. lekk Sénégal lañ moo leen tax parce que le turu bi c'est Donc, euh, le nom d'Afrique, tu le vois, donc immédiatement c'est un Africain, et particulièrement un Sénégalais. Donc, euh, ñoom bu ñu ñëwee dañu bëgg a ñëw découvrir beneen culture beneen gastronomie la ñu bëgg a xool. nous avons le ceebu jën nous avons le mafé. les nems les fataya. dibi on fait les firiir. restaurant bi la nekk ci xolu capitalu Espagne di Madrid doomu Sénégal bi di ci yëngatu di Yérim mu jël ñeent jàpp juróomi nit ay doomu Sénégal ak doomu Espagne ci ñooñu lay am ñuy ñëw saaba saa lan leen di fay mat na wala mu weesu fayoor bu gën a néew bu ñu dégle ci Espagne juróom benn téeméeru euro mu mat juróom-ñetti fukki ci sunu xaalis te liggéeykat yi yépp lu aju ci wàllu lu ñu mën a méngaleeg ñoom IPRES ak caisse de sécurité sociale Yérim Milé day wàccoog ñoom. ceeb bi neex na. Euh, ceeb bi neex na ni nga ko waxee Boubacar Kambel euh, Dieng waaye ndax dina saf ne suñu ceeb fii ci Sénégal boo ñibbisee incha allah euh, dina ñu ci xamal dara ñu wax nag ci changement de comportement bi nit ñi naka la ñu war a doxalee naka la ñu war a defee ci jamono yi nga xamante ni ñu ngi wax ci jàngoro yi Ebola ñenn nag ci chauffeur taxi ñoom ñu ci ëpp bu ñu nee leen malade jëmale ci l'hôpital yi ñoom daanaka dañu koy daw ba dañuy bëgg sax bàyyee malade yooyu ambulance wax nag nañu jëfandikoo li nga xamante ni ni moom mooy ay alcogel ngir mën a dàq bépp xeetu microbe lu ni mel nag clients yi ñoom ànd nañ ci bu baax a baax Lamine Diédiou Mardien yi ci chauffeur de taxi yi daanaka dañuy am xel ñaar pour ñu yóbbu ñii di ab malade ci hôpitaux yi lu ko waral virus Ebola bu ñëpp di wax. su ma arrêté ma séen ko xam ne kii kat lañ ma la ma dégg ci Ebola na mooy mooy mooy mooy dal nit bu ma ko gisee na xam ne lii moo ko dal du ma ko jël. kilaan bi su ma ko gisee. te sama xel mayuma pour ma yóbbu ko maa ngi incité dafa feebar wala feebarul te comme sappoor loolu mooy liggéeyam damay woo sappoor mu ñëw. waaye tamit ñenn ñi ci seen i naataangoo nee nañu gisuñu ci benn sikki sàkk surtout bu fekkente ni malade bi wonewul benn signe. noo amul incité Ebola feebar la du noonu. Ebola gën a garaaw sida ñoom ñoom nag ku la arrêté da nga yóbbu nit ñi hôpital. taximaan yi di wax ñi ngi jëfandikoo gel antiseptique yi bu baax a baax. ñun ordre de la ñuy xëy raxasu. encore dañuy bàyyi butéel bi suñu oto ci maal bi su ma xëyee bala ma ubbi sama oto damay raxasu su ma dawee su ma gaaree bu ma ñëwee bala maa duggaat damay raxasu suma ma kilaan joxee xaalis su ma paree damay raxasu. léeg dañ dañ di gàdde omo ci suñu oto yi omo taximan bu gis ñaareel day gàdde omo. client bi di wax ni loolu moo tax muy faral di jël taxi saa yu nekk. man taxi rek laay jël mu doon loo xam ne comme sama mbokk taximan yi nga xam ne ñoo yor taxi yi. ñu bàyyi ci xel parce que mën ngaa dugg ci biir taxi fi nga toog mu tooy xamoo ko fi toogoon xamoo ndax am na feebar bi wala amul feebar bi mu doon loo xam ne nag ñoom seen jëm bopp laa koy sas mu doon loo xam ne dañuy ut loo xam ne da koy protéger. lu ñu mën a jàpp mooy chauffeur taxi yi ci seen wàllu bopp ñu ngi def lépp ngir sàmmante ak tegtal yi bàyyeeku ci ministère bi saytu wér yaram. Lamine Diédhiou ñu di la jaajëfal xibaaru biti réew yi ci la ñu yegg si ak euh, attentat ba nga xamante ni amal nañu ko ca Afghanistan ca euh, Kaboul ñetti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan fukk ak juróom jëlee ci ay gaañu gaañu yu metti daañu dem tamit ba Nigéria fukki soldat ak ñaar la ñu atte atteb ndax euh, dañoo jàpp ni dañoo tiire ci kaw ay doomi aadama daanu wax tamit ci matuwaay bi nga xamante ni njiitu réewum Amérique di Barack Obama jël na ko ci yónni ñetti junni soldat ci ñetti réew yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a loru Euh, ci jàngoroy Ebola Ndeye Mbossi Sy Ebola bi mu ngi gën di wéy ci dëkk yi di Guinée Libéria ak Sierra Leone ci dëkk yooyu ci téeméer boo jël ñeent fukk yi ak juróom-ñaar dee nañ ci bu ñu sukkandikoo ci OMS Barack Obama di nara yonde ñetti junni soldaar ci Afrique de l'Ouest ngir gën a mën a xeex bi la jàngoro. Nigéria fukk ak ñaari soldaar lañu condamné à ndax dañoo bañ a wéye ndigal juróom-ñeent juge yi leen nara jugé ñoom jàpp nañ ne li ñuy tuumal fukk ak ñaari soldaar yooyu li ci mel ni ñàkk wéye ndigal complot tentative de meurtre ak yeneen ñoom ñoo ko def ñetti soldaaru OTAN ñoo des ci benn attentat bu am tey ci suba ci Kaboul ñi sànni bomb boobu nag benn oto américain lañu doon visé ci wetu ambassade u États-Unis ci Afghanistan te ñu bëri am ci ay gaañu gaañu xiif di gën di sonal àdduna bi même bu fekkee ne ñi yëngu ci wàllu moomu def nañ ci ay jéego lu toll ci juróom-ñetti junni million ak juróom ci doomi aadama ci àdduna bi wërngal këpp la xiif sonal waa ONU ne fii ak 2015 dinañ def seen kéem kattan ba wàññi bi la lim ci wàllum xiif. yegsi nañu ci gëstu tey jii ñu ngi ko jagleel pneu occasion yi pneu yi nga xamante ni euh, beesul lool loolee tax na ba ñu dem ba ca ale Pape Gueye Fall euh, xool nag ñu yëngu ci métier moomee di njaayum pneu euh, occasion yi loolee nag ñu gis ni ña yëngu daal ñu ngi ci suturlu bu baax a baax nag ci jamonoy nawet gi donte sax concurrence bi tal na di sa pera mardien alay Pape Gueye Fall bërëb bii nekk marché pneu auto d'occasion bi gën a rëy ci Dakar fii pneu yi ci ëpp di bàyyeeko Europe ak Asie te amul benn xeetu pneu bu fi ñàkk. yu bu occasion dañ koy importer yu bees it des fois dañ koy importer mais bëriwul parce que euh, xaj na peut-être dañ ne monopole bi dañ ne nii ci théorique ci théorie bi wax nañ ko nii mais doxewul noonu quoi demeewul noonu en réalité daanaka maanaam ñi importer pneu yu bees maanaam ñi ñi am doole ñi rek ñoo koy indi. non en gros li jënd ñëw jaayaat. mën nga jaayee 5000 mën nga jaaye 6 mën nga jaayee 7000 ak façon pneu bi waaw. njaayum pneu mel ni jamonoy nawet lay gën di dox taw bi ak tal yu bon yi tax borom woto yu bari ci jamonoy nawet la ñuy gën a faral di changer seen ay pneu ci pàkk ba nag fu sa poche toll rek mën nga am pneu bi nga bëgg. man man na man am na pneu yoo xam ne dinaa ko jaay 60 000 am na pneu yoo xam ne dinaa ko jaay. quatre-vingt mille am na pneu yoo xam ne dinaa ko jaay cent mille am na pneu yoo xam ne dinaa ko jaay quinze mille na yoo xam mille am na yoo xam ne dinaa ko jaay vingt cinq mille am na yoo xam ne dinaa ko jaay moyen dix mille waaw foofu la fourchette bi nekk en réalité mais nag ça dépend ci qualité bi parce que Sénégal yi dañoo bëgg. ay benn pneu pneu am na pneu am na pneu tata par exemple pneu camion bi ñu ngi koy jaay cent quatre-vingt mille bu bees tàq bu fanaan koy jaay quatre vingt pour le 4x4 am na yoo xam ne ñu ngi koy jaayee 30 000 am na ñuy jaayee 40 000 mais bu fekkee bu bees la ñu ngi koy jaayee 90 000 wala 95 000. MSN moom di vulcanisateur fii ci Grand Dakar ouvrier bi jàpp ne dont sax ñoom ci pën lu ñu liggéey lu njaay mi ak njënd mi dox dox ñoom gisaguñu si seen bopp. en matière d' argent euh, vraiment trou bi moo xaw a faible ci ni ñu lay fayee waaw 300 lañ lay fay taximaan yi 300. Euh, car rapide daal moo ci xaw a évoluer moom moo ciy fay 400 francs clients yi ñoom njëkk yi am ca pàkk ba tax ñu bari tàmm dafa jënd see ay pneu. leen wax dëgg yàlla cherul quoi boo xoolee ak yeneen maison yi daal fii baal moo gën a yomb quoi moo gën a xéewale man maa ko jëndee benn cent 100000 te bu ma ko waxaalee ci maison yi benn 160000 lañ ma wax waaw. 4 pneu yi 400000. waaw waaw fii moom wax dëgg yàlla moom moo gën a xéewale quoi waaw. donte Sénégal libéralisé na importation pneu yu bees yi représentant kër yooyu liggéey pneu yi di concurrencer jaaykatu occasion yi teewul ca pàkkub ale Papa Gueye Fall commerçant yi du wéy di sant bu baax. ñu ngi ci xibaaru tàggat yaram yi njiital fédération sénégalaise euh, bu tennis euh, jël euh, matuwaay ngir gën a dooleel tàggat yaram bi fii ci Sénégal Issa Mboup di wax ni lépp lu jëm ci mbirum compétition kon daañu ko defee léegi ci stade Léopold Sédar Senghor loole nag kenn du ca fay dara lay doon li bëgg nag ni ma ko waxee rek moom mooy gën a may nag tennis doole fii ci Sénégal ñu teewlu ko moom Issa Mboup ci micro Cheikh Tidiane Dione ñu moyen la par rapport ak yeneen bi origine bi d'accord naa ni loolu la woon waaye tey jii dootu dootul loolu pour gàttal rek fii ñu taxaw nii tey stade bi képp koo xam ni bëgg nga jouer mën nga ñëw dimanche walla mercredi wala samedi bul indi dara parce que ni ngeen ko xamee euh, fii ci Sénégal mun ñoo fi jiitu woon ci Afrique ndax AOF xam nga capital bi pratiquement fii la woon donc infrastructure yi fi amoon lu mu néew néew fii la amee woon waaye tubaab bi ba mu fi jógee ba léegi amul dara loo xam ni état du Sénégal def na ko fi tey. wala Abidjan bi tollu woon nañu foo xam ni waxuma la tolloo mais ñun ñoo lañ njiitu woon waaye ci dëkk yooyu boo fa demee quartier boo gis tey am na cour de tennis bu fa nee ñu jeexalee tàggat yaram ak tënk bi ci wàllu football tey ji nag ci euh, talaata ji euh, lu jëm nag ci ligue de champions européenne ki nga xamante ni moom moo jëloon euh, raw gàddu gi ci bii weesu du Real Madrid moom dana daal di janook FC Bâle ñu jàppit ne dina am beneen ndaje moo xamante ni dina am doole lool mu nekk nag li ñu duppi nag rencontre de choc diggante Dortmund lay doon ak Arsenal ñu ànd yër xëti yéene yi ak borom jërë ngeen jëf gën naa ni jërë ngeen jëf tëju leen lu ngeen man lu ngeen tëju doyul Ebola baa ngi fëgg bunti réew mi xibaar baa ngi ne dàng ci xëtu njëkk observateur frontière yi ñu tëjoon ñaar fukki fan ñett ci weeru août police gendarme rek soldat rek ku ci nekk taxaw ngir di surveiller frontière yi yéen kaay bi nañuy surveillance googee am na lu ca des Abdoulaye Diédiok Pape Ousseynou Diallo yu observateur yónni ca frontière ya la ñu fa gis moo di am na doomi Guinée ak doomi Sénégal yu jugee ci réew yi am jàngoro Ebola ji di dugg ci réew mi la leen fay dugal journal bi nañu moo bu ñu yegsee ba ca frontière ba ay moto la ñuy jël moto yooyee mooy wiiri ak ñoom la ñuy fay ma ngi tàmbale ci fukki junne jàpp ñaar fukki junne Balla Gaye dib doomu Sénégal bu toll ci ñeent fukkeet ak ñaar ak beneen waay bu ñu naan Mouhamadou Tall wala boog Mama Tall moom it ab doomu Sénégal la mi ngi am ñeent fukkeet ak benn ca Sierra woon la ñu nekkoon ñoom ñaan ñëpp ay peintre lañu yéene kay bi nañu ba jàngoro ja jollee entreprise ba ñu doon liggéeyal moo leen génnee ñu dikk bëggoon a dugg Sénégal ca frontière ba la ñu leen tëj ñoo ngi fa toog fi mu la ci gën a doy waar nag moo di ña nga toog foofee amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu a teg fitna nag moo di fa ñu toog ku fa romb lam leen di xoole moo di bëtuñu Ebola ñoo ngi nii coonaakub kersa di leen bëgg a rey li rey waa réew mi mooy compteurs Senelec yu yees yi Grand Place dañu waa Grand Médine gëñu ko yóbbul seen i tàng jir loolee Senelec ak na mu ko defee da ko bëgg a dajale réew mi kap compteur yooyee ñu tuddee compteur yi Ebola ndax lakkal gu mu lakkal askan wi ko yóbbu séntu ko ci réew mi yëpp te sax waa Senelec nee nañu tax compteur yi Ebola ñu bëgg dugal ci réew mi lawal ko moo di càcc gi am ci courant bi am ci xët mu njëkk la Soleil daje bi njiit réew mi Macky Sall amaloon démb ak njiital gox ya goxaat yi mu di élus locaux yi bi ñu acte 3 décentralisation la ñu fa doon waxtaane Macky Sall ak li mu gis ba wax ko ca ndaje ma moo di acte 3 décentralisation googe xeetu gouvernance publique la gu yees te it bu kenn joxte ne politique ko lal politique amu ci tey amu ci ëllëg Sud Quotidien nañu Macky Sall ca ndaje ma da doon defante dëgg ne lu aju ci lu luñ ne moo bloqué procès mairie bu Ndakaaru fonds de ak it élus locaux yi ak li aju ci acte 3 décentralisation Macky Sall wax na ca la mu ca bëgg a wax la Sénégal nañu ca ndaje ma dafa mujjoon maire dem sax ba naan gars bàyyi leen di wax naan dañuy xeex mairie bu Ndakaaru Moussa Tay mi secrétaire général bu mairie bu Ndakaaru ni ci biir observateur ndok gannaaw Macky Sall xeexul xalifa Sall loole mooy la ca gën la Sénégal mel ne ku naan l'observateur may ma ma yeggale nett léegi ne ndaje moomee Macky Sall woowoon njiital gox yeeg goxaat yi Idrissa Seck teewu fa woon xalifa Sall teewu fa woon ci populaire Ousmane Tanor Dieng xëy fa teew li mu bëgg moo di Macky Sall ak Khalifa Sall mairum Ndakaaru daje toog waxtaan ndax nee na ñoom ñaar ñooñee seenu daje munta ñàkk te mooy njariñu askan wi ba tey ci le populaire Abdoulaye Balde ak i kàddoom maire bu Ziguinchor bi nañu fa compétence transféré gi wuti wut ak transféré leen ay coono yoo xam ne kenn amul saafara anke dina kay nañu daje bi doxoon démb ci diggante njiit réew goxee goxaat yi wuti ay tëx yu doon waxtaan kenn déggul sa morom Macky Sall mi doon ñu bàyyi si ñuy faste diggam ak mairim Dakar ba naan daf leen di xeex ak Abdoulaye leen transféré wuti wut ak yokku leen aju ci projet mairie Dakar yu ñu bloqué Macky Sall nee na du ca lenn leneen lu nekk ci journal yi ñu xëyandool moo di layob Karim ak i gaayam yi ñuy toppee teranga julewul la si ne kenn ñu ca ñooñee kenn ca di Alioune Samba Diassé toj na kaas ya ne ca kanamu juge ba daa meloon ne ku tàggoo ak sagom dem na bay génnal juge ba ne xamul Karim observateur nañu société bii di ABS action ya ca am yaayi Pape Mamadou Pouy mbindaanam moom la ne moom moom 45 pour moo ca kanamu sandarma ya la mu fa wax yëpp du lu mu xam le quotidien nañu moom jaase ba ñu koy déglu ci anam yi ñu taxawalee société bii di ABS daa dem ba mel ne ku naax nde daanaka mboolem li ñu ko doon laaj la mu ca doon tontu moo di fàttaliku ma ko nañu dem sunu lambu fàttaliku roi des arènes ba woon mu di Yaxya Jóob Yékini yéen kaay bi dañu saison déwén bi bu moytuwul ci anne blanche lay mujj ne ñeenti mbir ngi yoo xam ne ñoo ko sëkkatal bu ñu ko bàyyiwul Yékini du bëree benn bokk na ci Triple Less doomi Double Less di Balla Gaye 2 ak Bombardier ñoom ñaar ñëpp nee nañu dootuñu bëreet ak Yaxya Jóob Yékini amateur yi ba Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 wala combat Balla Gaye 2 ak Bombardier la ñu gën a soxla te moom Yékini munut a bëreeg Modou Lo munut a bëreeg Tapha Tine ndax ay gaañ lañu beneen ba ca topp sunu lamb nañu moo di moom Yaxya Jub Yékini benn tànkam ma nga ci retraite suñu ñaari gët ci populaire ñu xooli la xew ci HLM Angle Mousse yéen kaay bi nañu benn mbindaan bu ñu naan Bintamane moom la ñu fa fekk mu faatu ci anam yu doy waar dañoo yegg ci kawam violé ko bu nuppi faat ko ak paaka ñi di la jaajëfal Mamadou Mouhamed Ndiaye ñi jàppoon ci xibaar yi ak ñi jàpp euh, ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ci télévision Futurs Médias